li nga xamante ni dama koy leeral par rapport ak menaces yi nga xamante ne moom laay jot si kër Ndeye Tické Ndiaye te ma waxoon ko ko bu lu jiitu mooy képp koo xamante ni xam nga tey jii Ndeye Tické soo déggee turu Ndeye Tické Gilbert nga siy njëkk a teg bi ñu demee ba nga xamante ni jàpp na ni moom màgg na war na mën a demal boppam war ñëw sama ak moom mu wan ma ginnaaw euh, la ma ko waxoon si SMS. sàmm naa ko mooy euh, sama digganteeg yow dinaa sàmm kóllëre parce que tey jii fépp foo xamante ni mën nañ faa daje maak moom du ma du ma du sëgg parce que Ceesuwaa yëpp seede nañ ne tey fii tikke yegg si yàlla ak sama jëmm jee tax 2016 la ñëw si parti yu fekk fi kenn xamu ko euh, may profité si loolu sax di nuyu waa këram moom ne yaayam suma yaay la waa kër gi aussi sumay nit lañu damay déggante ak ñoom euh, xam nañ ne defal naa ticket loo xamante ni nit mosu kaa def parce que ticket bi mu fi ñëw sëram la nit ñi xam man maa ne ko dinaa dox ak sama tànk dinaa wax ak sama làmmiñ ba ñépp xam la dinaa ànd ak yow ci sa poste SG bi bunge la ba nga am dara mosuma kaa ñaan mosuma kaa di soxla mosuma kaa sant leneen li indi suñu séparation ma am malaat si ñi nga xamante dañ may jàppale si wàllu politique Siré Dia faj ka ma génn gërëm Siré Dia ticket tëj ay portam bi mu tëjee ay portam ay la yéen man la may dundee comme li ma am habitude di wax naam si politique laa ne mais Serigne Touba mi ngi may dimbali ba samay soxlay bopp maa ngi koy faj te li ma am maa ngi koy essayé di bokk ak askan wi mais ba am depuis novembre 2018 kenn ku ne xam na ni dama renouveler sama engagement sama digganteeg parti bi topp ma si ginnaaw benn responsable xaaruma benn responsable aussi c'est dara manager ngi jël ma parti bi di jox maa ngi jël li ma nit ñu baax ñi di jox ngi jël ma am di ko jëf di di massifier pour le parti pour que parti bi am ndam dans dans l'histoire de notre parti euh, Augustin Tintin il est le coordinateur départemental Thierno Alsansal, Sall il était le coordinateur communal président moo mais diir bi Tierno Thierno président en tant que secrétaire général du parti yabalul Net, dans la yaa Il commune bi eu même su doon yabal Net, dina bàyyi ñun responsable de la euh, responsable yi nga xam ne ñun ñoo nekk ci base bi ñu waxtaan defal ko proposition ñaar ba ñett nit te suñ doon def proposition dix personnes pour ñu jiite commune bi ticket de ci bokk. tey ticket sur génn ñan ñoo top c'est c'est pas la ñoo koy top, c'est pas le Benno Bokk Yaakaar ñoo top topp ñan ñoo koy des présidents de mouvement de soutien kon mom mi ngi am sax amalgame diggante. les mouvement de soutien ak le Benno Bokk Yaakaar loolu nag la ñuy alerter à ce que mu arrêté. parce que ñun kafuñu. mais nag euh, jàpp ma loolu mouvement de soutien yi ay jàmbaar lañu ku si mel ni président Ablaye Dièye ku si mel ni Pascal Mamadou Ngingue ay ay jàmbaar lañu ay ay liggéeykat lañu ñi ngi dolli si xaru président Karaw. loolu kenn werante wu ko mais euh, train lu wagon est bari bari bari bari bari bari mënta bouger sans locomotive bi te APR moy locomotive bi Benno Bokk yakar moy moteur bi kon kep ko xamne da ngay woote lu jariñ président da ngay sax si lu euh, bolé APR da ngay sax si lu boole Benno Bokk yakar parce que tey amul kenn ku gëna a euh Abdou mbaw amul kenn ku gëna a méritant docteur Ndiaye amul kenn ku gën a may Maymouna sen honorable député amul kenn ku gëna a méritant euh, madame job sila ak ñeneen ak ñeneen suñu doon lim 10 pour proposer ko président ticket du si bokk politique wu Thiès amul nit ko xamante yow yaa mas gëna a ancien wala yow yaa mas gëna xam duma tag tagg sama bopp Benjamin Libéraux PDS la bokkoon Macky ñoo bokkoon PDS Abdou Mbaw il était mon secrétaire général kon xam-xamu politique amna la xamna comment faire pour massifier bi ñuy dem si référendum bi au moment où Idriss Seck di jaabante ci biir dëkk bi mel man man ma génn mel man man ma taw mel man la Idriss Seck do mel man la waré mu do tay lan la def président ana lan la def président ba nga xamante des gens yo xamante ni tekkiwuñ dara des gens yo xamante ni su woon lii su poste de responsable duñ leen xam au moment tay suñu démé bay bind message sama téléphone di di ma saaga ndey de toog 5 heures du matin di fëgg sama palanteer parce que boobu new ma woon si kër gee tax mais dafa am loo xamante ne day jeex et puis xarit kenn du ma ko utal tey jii dafay yelloon ñoom ñuy xool des porteurs de voix des gens yoo xamante ni si social la ñuy dox ñu xëccal ko président pour que rien que pour que président am ndam. Habib Kane suma mag la ñoo bokk koñ ñoo yarandoo tey su yàlla dogaloon ma faatu. Habib Kane moo fay jiitu su dara xewoon sama kër moom moo fay jiitu ñu ma bokkal parti loolu du politique dëkkandoo la d'abord. beneen bis des ma gis ni Habib Kane depuis 2011 mu créé benn réseau bu ñuy wax réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès réseau bi muy démarré dañ ne réseau d'appui pour le développement de leen wax dëgg yàlla ay la yoon man su may politique leen laa am Ranoulen a tax su may politique Thiès laa am Thiès a mais ma gis ni Habib.

ñoom ñëpp dañoo nekkoon si dëkk bi di jëfru ba nit ñi amoon yaakaar bi ñu tànnalee élection locale yi pour ñu xam ne nit ñi dañoo faux ay nit intérêt lañu ñoom ñëpp a dem toog moo waral sax population bi tabaski bi xaw a métti si ñoom jot ñu benn ndimbal tey jii population bi xam nañ ni pour que les politiciens di leen jàppale faaw événement am euh, mais bi ñu rendalee yëf ñoom ñëpp a toog léegi rendal nañ ko man la ma waxoon bu njëkk moom laa wax mooy candidat la à la candidature de mon parti APR bind naa lettre président te la ma ko waxoon si laa jàpp ba léegi bëgg naa mu samp ma Thiès Ouest bëgg naa su may gañee Thiès Ouest ma ànd koog parti bi parce que tey képp ku mu fi jiital dans le parti ba mu des docteur Pape Amadou Ndiaye maa ngi moom mën nañoo bokk liste mu jël tête de liste majoritaire ma jël tête de liste euh, euh, proportionnelle mais keneen ku mu fi jiital Thiès Ouest du ñu ànd ak yow parce que jàppale wuñ Thiès Ouest beneen bis des pour l'intérêt de notre parti tey jii président dafa pour nga ñëw sauver Thiès pour sauver Thiès il nous faut des hommes de qualité il nous faut des hommes sociaux il nous faut des hommes qui xamante ni dañuy teew si euh, soxlay askan te gis nañ ci kenn koo xamante ni Habib la tudd sant kan jiite réseau d'appui pour le développement de Ranérène ñu ngi lay ñaan nga xëcc ka teg ko sa wet en grosso modo pour pour pour mu gàtt tey li ma metti bari na mooy jaxase nañ maag président ba nga xamante ni bi ma ko bindee demande d'audience ba léegi recevoir agu ma tawat naa fi amul kenn si ñoom koo xamante ni en tant que sama diggante ak samay mbokk sax partie bi déplacé wu defuñu loolu euh, may lancé appel président que jaadu na mu recevoir ma parce que maa ngi koy liggéeyal jaadu na aussi mu recevoir ndaw yi nga xamante ni ñi ngi Cees te jotewuñu wuñu si moom mu waxtaan ak ñoom te Thiès gisoon nañ ko fi des hommes de valeur des hommes de qualité mu recevoir leen waxtaan ak ñoom ñu bunge ñu ci élection locale yu ñu jëm.